asalaamaaleykum euh, sunu mbokk internet yi tey ñu déplacé ñëw seet si ku màgg koo xam ni kilifa la ci ñun koo xam ni dafa ànd ak sunu wayjur bu ñu waxee sunu wayjur mooy sunu taaw baay di xaritam koo xamante ni bi kilifa yi dañ ko def kilifa muy kilifa ji dëkk bi nekk sunu nijaay waaye nag facette yooyu yëpp taxul ñu ñëw tey dañ fay ñëw ndax benn troupe boo xamante ne moom la jiite balaa ñu leen wax troupe bi bu ngeen gisee jëmm ji leen ko xam muy seex Zakaria ñaa ñu ñëw fi tey war a waxtaan ak moom ci troupe bu mag boobu nga xamante ne bi moom la wax cercle de la jeunesse de Louga li tax nag ñu ñëw pour waxtaan ak moom ci loolu mooy danoo gis tey benn clip boo xamante ne bi cercle de la jeunesse daf ko génnee partagé ko clip bi ñuy def benn yeete

moi dans ñu déplacé au fait si Cheikh pour que culture cercle de la jeunesse bu ko nga patrimoine Louga la a mën a ak ñi nga nañ cercle comprendre lan cercle de la jeunesse de Louga kon ñoo rek dañ pour expliquer lan Cheikh Zakaria mu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 mën nañu wax sax léegi cercle de Louga parce que euh, cercle de la jeunesse macha allah yëfu Louga la du yëfu kenn ñi ko ci Louga gii la lan ko formé fii lan ko lan ko lan ko façonné cercle ndama mag léppam Louga la ko indi kon nag cercle la jeunesse mom, cercle de la jeunesse bu Louga la donc kontaan naa lool ci recevoir la fii waaw. jërëjëf Cheikh Zakaria balaa ñoo sore rek yéen ñi nga xam yéen a ngi jóg a suivre.

parce que maa lay wax ni la cercle de la jeunesse bi may bi may nek président moma mak waaw cercle de la jeunesse moma mak cercle de la jeunesse ñong ko formé 1951 1951 nak moma mak mu nek lo xamni ay doomu Louga yo xamni dañoo bëgg dëkk bi dañoo dundé sen dund yëpp bëgg Louga lañ ci def amone ay lo xamni nek ci sen xol ak sen xalaat pour loo xam ne mooy defar dëkk di defar nit di defar nit sax laay wax moo nekkoon ci seen xol ak seen xalaat ñu bëgg ko génne waaye bëggoon ci génne Louga itam wax ni Louga parce que boobu Louga mi ngi ci département Diourbel boobu Louga nekk gu région ñu nekk ci département Diourbel ñu former cercle de la jeunesse parce que Louga euh, ci ñenn yenn wax yi yàgg na am boobu boobu xat-xat parce que Louga ku nekk ku nekk boo xoolee ni mu nekk ci diggante Ndar

am euh, éducation am am am xalaat yu rafet yoo xam ni baax na ci ci ci population de Louga ñu bëgg koo génne ñooñ ñoo dajaloo former former former cercle de la jeunesse de Louga ñooñu danaa ci lim ñenn rek parce que yorewuma sax sama document yi mais ku nekk xam na ni Mademba Diop Faye l'un des premier membres fondateurs du cercle de la jeunesse ànd ko ak ay sunuy baay ñoom Alaaji Baaba Diallo ñoom Birahim Dieng ñoom Dame fay ñoom Pa Ibrahima Ndiaye ñoom euh, Pa Pa Pa Pa euh, nu mu tuddati euh, kii Ndour Adama Ndour mais donc Alsane Camara ancien maire de Louga ñu bare Louga lañu bokk ñoom Samba sunu Fall ñi ngay dégg ñoo ñëpp ñëpp Abibulaay Camara su ndeysaan ñu ci bare yàlla def nañ ñu jiitu fàttewuñ leen xëy na dañuy teewlul mais sunu ay waajur yoo xam ni ñoo nekkoon cercle de la jeunesse maanaam ñu ñu takku lañu des des des des jeunes yu décidé yu amoon personalité ñoo ñoo formé woon cercle de la jeunesse ànd kook ak ak sunu ay yaay aussi amoon na sunu ay ay ay ay maire yoo xam ne ñoo ngi woon fii ci dëkk bi ñoom sunu ñoom Tante Sodou Gueye euh, ñoom soxna Pa Adama nduur bi damay fàtte tur bi mais ak ak ñoom waa kii jaxate famille yu bare bare cercle de la jeunesse waa Louga ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ci bokkoon li ma gënoon a neex nag demoon wan wan nan ma ci ay ay ci ci ci ay ay kayit yu wane nii même fonctionnaire yi nga xam dañoo dañ leen a affecté woon Louga dañuy ñëw adhéré cercle bokk dëkk sax ki dëkk bi foofu waaw. léegi cercle daal di nekk troupe théâtrale. troupe théâtrale bi mu ko nekkee loolu ngi li nga ma expliqué nii mën na jàpp ne ver ban année la. parce que cercle ñoo ngi ko formé cinquante et mais cercle jàppal dafa nekkoon association cercle amoon na équipe football. association la njëkk nek association la njëkk nek association la ba léegi sax xeyna culture bi dafa dem am ëpp ki doole ñu mu génn noonu mais dafa amoon wax na nu suñu ay papa ay pa waat ak ñu bare bare ay pa yoo xam ne fii bon pour bañ a lim turu ci ngir bon kilifa ay kilifa la ñu léegi ah ci cercle lañ doon football cercle dafa am équipe de football am am am section artistique waaw. waaw cercle donc ñoo ko formé en 1951 août 1951 lañ ko formé. léegi bi ñu formé cercle ci présentation bi wax nga ñu ban année lañ ko formé wax nga lim nga mag ñi nga xamante ne bi tey mënoo lim Louga ay kilifa te boolewoo leen ci tey bu ñu doon wax ni cercle euh, première génn bi mu génn Sénégal bi ñu ko formé ba mu nekk association am yu yu mu def ci Sénégal mais at mi nga xamante ni moom la njëkk a génn voyage ak lan moo tax mu génn nan lañ ko sélectionné pour cercle génn dem dem jouer ci international. waaw euh, ma jooju gis nga euh, itinéraire dañuy dellu si waat Louga. ndax certes comme ni ma la wax dafa nekkoon département Bok, ci région d'Urbel. donc bu amee ay semaine nationale nii. dañuy sélectionner troupe yi. qui, yëpp dëkk yi département yi parce que je me rappelle bien def un euh, département région d'Urbel, Bambey la woon Diourbel Mbaké, Louga ñoo doon ñeenti ñeenti ñeenti département yi dañ daan daje Diourbel defal semaine def semaine régionale manam compétition bo xamné ci biir région bi lay am ba pare maanaam Louga sax dafa daan am compétition cercle amone na yeneen troupe yu mu daan jonganteel fii ci biir Louga parce que Louga dëkku aar dëgg la waaw wax na nu ci du du mu dellu gannaaw parce que wax na nu ci fi muy jógee dëgg-dëgg li tax mu nekk dëkku aar parce que ku nekk boo déggee histoire marbat nga xam ni jaaykat yi dan daan ñëw jël seen i gëléem yëpp seeni i bagage ñëw bu ñu ñëwee ba guddi ñëw fanaan fii ci marché bi bala ñëw xëy suba ñu ne suba la marché bi la ñuy fanaan si ñuy sippi seen bagage bu guddee la ñuy def ay animation artistique ci biir ci ci biir fi ñuy fi ñuy wàcce seen bagage yi foofu nag artistes yu bare dañ fi daan daje li wër Louga itam muy ay sàkkal ki kokke yi yëpp dafa bari ay ay xam-xam waaw donc foofu la donc ñooy Louga dafa amoon ay compétition d'abord cercle di fi jël premier ba pare représenter Louga dem dans la région de Diourbel dem région de Diourbel raw di raw parce que boobu ay troupe foofu troupe yu yu rëy ñoo fu nekkoon man j'étais encore très jeune biñu ñu affecté sama papa djourbel maa ngi ko ané bi bi Bambey di woy cœur kër ma samba djé bi Youssou Ndour di woy non, Bambey lan ko woye man man fekke na première prestation bobu ci arène arène arène cœur cœur cœur Cheikh ci djourbel waaw parce que bobu sama papa mooy directeur maison de jeune bi foofu fekk na ci amna na ci fekke donc euh, mais troupe yi mag yoy ñofu fa cercle di len raw waaw di raw soog a génn di représenté ji di représenté ji la région de Djourbel à Dakar maanaam région bu nekk nag yóbbu sa yóbbu sa troupe waaw ci ci ci diggante boobu nag am na benn secret bu ci nekk wax na ni jaar nañu benn bis Touba yàlla wan na leen nag ku tedd ka sëriñ Fallou Mbacké doomu Cheikh Khadim bu baax bi mu am ñaan bu mu ñaan nag wax ñu leen cercle bii daal lii ngeen def ni yéen ca kaw rek fekk ñoom ñu wokk ni ko daal dañoo bëgg dem dañuy jongante ji. te cercle génnagul ay niveau international. génnagul niveau international dañoo bëgg dem dem jongante ñi bëgg nga ñaanal mu leen fu ngeen dem rek yéenay jiitu am na histoire bu neex bu ci am mais du du du ma raconter yenn yi day gudd ah. mais ñaan googu moom kenn du nekk responsable cercle te doo ko tudd waaw parce que lu yàlla lu yàlla def la mu jaar ci lo ci loxo euh, euh, sëñ sëñ sëñ Fallou Mbacké ah donc loolu mag ñi dama gis toujours ñu ko ñu ko doon wax duñ ko fàtte souvenir bu neex la ci ñoom

Euh, yàlla def na suma papa bokk ci bokk ci encadrement bi yàlla def na itam fun nu mas a affecté dëkk bu nu mas a affecté euh, cercle buy buy buy buy joué bu ñëwee day day dal suñu kër waaw bu dëkk bu nu mas a affecté rek cercle bu fa ñëwee day dal surtout nag Jurbel nga xam ni dafa amoon compétition xam booba booba sa papa euh, intellectuel la kilifa la mais mi ngi membre la membre la ci cercle ñoo membre cercle lañu te ñoom loolu dafa dee ci seen seen xol waaw bi ñuy bi ñu nekkee Diourbel xam nga léegi rek comme wax la ko nga nekk luga man dama fa amoon problème Diourbel fa laa jàngee def naa def naa fa trois ans jànge naa fa C1 CM1 C1 c waaw mais li li ma li ma gënoon ne problème mooy équipe bu Louga bu jógee di football si Diourbel suñu kër la ñuy waaj donc j'ai damay am total déjà des ennemis dan may mere bu tur bu Louga ñëwee suñu kër <laughs> lay dal mais quand loolu loolu dafa ñu boole ceeg nag maa dem Demba Diop nga xam ni mooy président fondateur bi bon dëgg la sama sama mbokk baay la sama baay la mais sama sama xarit la woon ku ma wóolu la woon ku ma ku ma ku ma ku ma jàngal lu bari ci cercle la waaw fekk naa très très tôt dama dugg cercle xam nga man mënuma mënuma woy noonu mënuma fekk noonu ah. waaw mais teel naa dugg ci cercle parce que ci ay responsabilité la ma ci dugale

wala moom dafa nekkoon membre noonu ak euh, way yi nga xam ne moom la doon bind euh, dafa doon ànd ak thème naka pour nga décortiquer tuuti rek. wax nga lu rëy rëy kooku moom <laughs> dafa dafa rëy xam naa ne amuloo chance xam ko mais sa xaritu papa la parce que ma sama wax ni ma ñoom bokkoon nañu bokk nañu classe mas sama ma wax la sa xaritu papa la maa dem ba euh, ku yéeme woon la. yéeme won du ko du ko jàng nii ci bay yi dem am am ay bac ay yoy non non non dafa dafa ramper limu jang moko jangal bopam dem na ba nek haut fonctionnaire parce que dem na ba nek directeur de la jeunesse maanaam ci ministère de la jeunesse mo nekkoon directeur yi ngay dégg ay festival ay ay ay ay semaine nationale de la jeunesse yooyu yëpp yëpp yëpp yooyu ay xam-xamam la CREPS ci ak CREPS moom mooy jàngi France moo dem France def fi stage ñëw foofu ñëw créé ko Sénégal ñëw créé kooku boroom xam-xam la bind aussi. loolu moo tax ñuy woy kuy laal maa demba. waaw kooku kooku ci benn benn lu la parce que loolu sa bàjjen sama sama yaay. sama yaay ndeysaan yàlla na ko yàlla xare àjjana faat kase ku ma bëgg la man ak taawam ñoom maase badu waaw ba pare mu nekk ma daan léet sama yaay dan ma daan dama daan toog nii muy léet sama yaay daf maa bëgg sama yaay avant muy génn àddina ni dem naa fi ba Kébémer waxtaan ak moom ak tonton Saliou Thiam ba bugg ko defal benn hommage à Kébémer waaye yàlla yàlla yàlla dogalu ko donc euh, Mademba bu ma la kii woon dafa am benn am na livre bu mu bind yeete la bind yeete woyu cercle yeeg yeneen poème ñoo ngi ci waaw xam nga woy mhm. woyu yeete maanaam woy wuy jëriñe mhm. maanaam dafay am continue waaw mi ngi yedd ki boot doomam la di yedd doom ji di ko di ko ñaanal yàlla di ko wax ci avenir xëy na liir la boot di wax ak moom mais tey ji ma joojo wala Zakaria bu romb woy bi daf ko lay daf lay jëriñ donc nag mais nag woy boo ko boo ko woyee toujours il faut nga wutal ko adresse waaw moo indi kuy laal ma demba sabar ga ca ndaa yande kuy laal ndaat saay kuy laal sama doom ji ah salaan jooyul weet ah, xam nga. Euh, woy woowu man noonu jàpp ni kon woy woowu cercle de la jeunesse moo ko moom. ma demba man ak taawam. Fat Diop léegi laay jokkook moom léegi ci sa ci sa groupe bi. xam naa bu ñu paree naa danaa ci Fat Diop ñoo maase. ñoo maase ñun ñaar ñëpp ñoo ngi juddu cinquante huit. waaye mas na toog fii ñuy ñuy añ après ñuy wax oto bu oto bu rafet ak loolu man ko ah. oto kañ oto kañ bu boo amee ñaar da jox benn bi nag say say taaw man ak Fatou Diop mu ne ah yéen da ngeen def ni yéenay taaw hmm. non non non cercle de la jeunesse mooy sama taaw yéen a ci topp moom moo créé cercle de la jeunesse génn li ci biiram maanaam ay xam-xamam ma xam-xam nag boo ko waxee léeg nit ñi di la wax fii la jëlee lii fii la jëlee non c'est normal ma dem ba dafa jël da daan jël magnétophone am hmm. wër wër di wër Sénégal hmm. di xam. lan lañuy way lan lañuy wax naka lañuy ñuy bu xolé yalla may na ko xel mo xam nak lamu lamuy jël foofu même bu ko jël ci nit ñi lamu ko utiliser def ko gisaguma keneen ko ko def ba tay kon mën nañoo jàpp ne Mademba mom moy moo doon moo doon mooy cerveau. bu cercle de la jeunesse. Ah, parfaitement. loolu da doon ben interjection bu dugg tout ci ma Mademba. légui ñu jall ci cercle. dinaa la wax ni la. moy cerveau cercle de la jeunesse mais moy cerveau. téeméeri junne artistes yu nekk senegal ñun ñi xam ñun ñi jàng ñun ñi xam ma Mademba jàng li mu bind ñun ñi jàng bare na fi ku ku ni koŋ koŋ koŋ boo nee tëgg ci biir ba ci biir Mademba ngay woy wala Mademba ngay wax ñun xam nañ ko danañ ko xam nag waaye dadul lu ñuy nekk di xëccoo wala dara. dëgg loolu loolu am na ndax kuy laal demba am na artiste bu ko woyoon waaye mu def feu et flamme génn. tay cercle monon nako top wala mu am numu demé demee Fay na ci problème ak. so deglo interview Badou Ndiaye Badou Ndiaye nga xamni artiste international mi ngi do xam nga ko Badou guitariste ma ngi gis barki dem interview mi ngi wax fi mu jaar ak artiste yoy Dakar parce que mom Badou Ndiaye jarbaatu Mademba la yaayam ak Mademba ñoo bok ndey ak bay mu yaro ci kéro nijaayam lépp lu œuvre daan seetaan répétition cercle lépp lu œuvre cercle bu bu nekk am am mokkal na ko mais nag yàlla nattu woon ko mu topp nijaayam ci li nijaayam bëgg nijaayam musicien la woon parce que maa dem musicien la woon hmm? bu njëkk ba daf daan saxo ak ak ak yore ak clarinette ndeysaan saxo bi loxo yi bi ñu defee accident cercle boobu ñu defoon te Elimane Thiam dee ci hmm. ci la loxo yi gaañoo noonu après clarinette lu muy bind bu ko bindee pare bu ko buggee woy da jël day jël cla euh, clarinette di ko ci di ko ci kii ba am son bi ko bi ko gënal donc Badou Ndiaye ci loolu la loolu la juddoo mais Badou bi mu demee Dakar ay woyam yi mu doon defar moom lay defar ba mu jekk jox artistes yi ñu woy xëy na nag yàlla mooy def succès. yàlla mooy def succès léegi danoo taxawoon ci Mademba tuuti rek. léegi ñu dem ci cercle. léegi cercle jël na compétition yi niveau national régional. jël ko national. Mhm. léegi nag war a dem nag international. année boobu. lu ko indi ba lu ko indi ba ngeen demee. naka la cercle doxale foofu. xam nga ndeysaan nit ñi dana ñuy critiquer politique moom mel noonu dañuy critiquer euh, président Senghor. ci culture ñu ni moom culture rek la ñu indil defalul lii deful lii maanaam moom dafa amoon ci xolam affaire culture. Hmm. waaw moom dafa daan topp aar bi. ba cercle de la jeunesse ni mu mel mu mu mu taf ko ci bopam mom Senghor mom Senghor président Senghor wax naa la ne la décrété en 1970 defe naa wala entre 67 et 70 mo décrété ni ni ni ni cercle mënatul concours fi Sénégal ndax coupe bi fi tek mu raw ko na baye ñeneen ñu concours. waaw ah, booba fekk na cercle bir Sénégal compétition bu fi tek mu jël premier. tegee cœur mu gagner bu ñu tegee kër mu gañe bu ñu tegee bale mu gañe bu ñu tegee pièce mu gañe teg ko ñaari yoon ñett yoon ñeent yoon juróom yoon ah mujj gi Senghor nekk loolu dafay dafay dem nañ ba mu gi ñu ne dañ koy faral ak yooyu Senghor ne léegi lii gën a wóor comme gars yi lii daal amul dendandoon nañ leen def cercle hors concours bu semaine nationale bi amee Louga dana yóbbu troupe soit bu baambay bu kii wala bu Louga mais cercle dañ koy invité invité d'honneur moom tamit comme li ñuy wax li ñuy invité ñu ngi invité président yi ci yenn réew yi ñuy ànd ak seeni artistes moom tamit am na ay voyages xam ne dafay dafa ko ku buggoon di ànd ak cercle de la jeunesse pour wane aaram mais Mademba Diop comme li ma wax dafa nekkoon borom xel mu ñaw ñawkaar macha allah ah amoon na da daan tukki amoon na ay contact te itam li ñuy wax ci doomu Louga rek li may kontaan ci ma Diop ma ma joojo wut lii ñam Louga di feeñ di wane doomu Louga dafa bëgg loolu waaw loolu xëy na mënu ma laa mënu ma laa gërëm yow dama lay ñaanal ndax sama dag maa joge lool mais nii waa Louga di def wax naa ko bërki dem beneen rajo aussi ne leen nii ñuy def Louga ngéen di génn Louga li loolu Louga doomu Louga noonu la ma sa mel waaw donc bi muy dem fu mu dem gis fa lu baax da koy da koy jéem a xool seetaan ko xool loolu lu baax loolu am ci yeneen réew yooyu mu jéem ko adapté fii ci Louga ba def ko fi noonu la def ba di bindant bokk ci Euh, fédération festival ici à àddina bi parce que dafa am fédération ici à àddina bi dañoo am benn association bu mag mu mu bokk ci loolu Mademba Diop hmm? di di di xam parce que c'était le direct on a le directeur de la jeunesse parce que moom inspecteur de la jeunesse plein la waaw di di tukki xam euh, le xew ci yeneen réew yi di bindanteeg ñoom am ay xarit ñoom Jean Roche en France et tout ça ñoo xam ni dañoo dañ ñëw Louga waa Louga ñun ñi doon den jeune nañ leen xam parce que ñooñu dañ daan ñëw Louga di donc Madame, la mu daan foofu ah bu ñëwee jëm parce que hormis ni mu defaree cercle demoon na ba créé le FIFOL premier festival Louga moom moo ko cercle festival bi njëkk am cercle moo ko créé cercle moo créé cercle comme cercle trouble ñu wutal ko association FIFOL festival international de folklore de Louga wallaay mu am succès bu rëy mais après c' est les moyens qui faisaient dafa maanaam problème xaalis problème moyen moo mujj rek parce que demoon nañu ba euh, troupe internationale ku nekk day bëgg ñëw ku nekk di jóge fu nekk donc loolu dafa nekkoon charge bu xaw a diis après ñoom ñu ñu bàyyi ko waaw. léegi ñu ngi ci cercle ba léegi. dem nañ léegi niveau international ban dëkk lañ njëkk a dem. waaw bu ma la nii ci palmer cercle. suis allé au cercle en 1962 dem na Helsinki ci Finlande ah. waaw festival des jeunes et festival de la jeunesse et des étudiants là. ah. Mm. Euh, ñu ñu jël sélectionné le festival pour nous représenter l'Afrique au ballet des cinq continents. <laughs> waaw donc je ah. en 1966 mu Narbonne au festival des maisons des Jeunes et de la culture mm. en 1964, 14 Moudem Olor en France au Festival des Pyrénées en 1973 le cercle de la jeunesse était choisi pour représenter toute l'Afrique au premier jeu afro-latino-américain à Guadalajara Mexique hmm. hein? euh, depuis le cercle de la jeunesse a continué à sillonner les scènes d'Afrique et du monde da Afrique aussi Gambie euh, Tunisie euh, Europe Espagne Italie ay tourné trois mois. Donc, le cercle la trois mois trois mois yo xamni ni trois mois je suis man def na ñaari ñaari ñaari voyage ak Cercle de en Europe voyage trois mois mais bu trois mois la bu chaque jour trois mois chaque jour chaque jour ak festival donc dañu am de euh association des festivals yu Europe buñ la invité buñ la invité dañuy wax invité nañu tel troupe bu ko defee bu dee bu nu troupe bi ni troupe bu mag la yeneen festival ni ko ñun danañ ko jël tel jour danañ ko jël tel donc boobu am dañ daan def tournée trois mois en Europe hmm. waaw donc cercle Gambie aussi xam nga euh, cercle Gambie ak Sénégal ni ñuy ñu ngi anto. cercle dafa jumelé ak national drama bu Gambie cercle dafa doon dem Mauritanie dafa am troupe Mauritanie boo xam aussi dañoo xaritoo ak cercle hmm même amna um, amna Mali amna Sénégal manam Sénégal, daal tiise na ay relation yu bare waxna ni la euh, la coopération internationale bi nga xamni Louga mo mën na wax ni Louga moko ci le doré presque à part yenn euh, grande ville Louga moko gëna gëna gëna mandargal mais ci par par les voyages la présence du cercle au niveau de ces de ces de ces de ces de ces voyages là ci la ci la lolu soxiko donc euh, cercle la général manam dama la wax ni la maanaam pouma Louga la cercle mooy Louga daal mooy Louga allah waaw. la cercle moy lugal legui cercle ma demba mo don bind damay gis bim binde ma kuy lal ma demba mu nek way wo xamanteni bi ci bir way wi amna yete yeete kon da fay melne yeen ci lol ngeen wat ndax bo dégloo sen way wi ngeen way way wi da ngeen ko jël ci Covid 19 bi. mbas mi mi am wala dafa dafay lu cercle amoon mu jël ko exploité ko wala la tudd nga tur bi téere ma bi dama la ko fàtte génneel moo ko génne woon da ngay gis yeete la ci bind noonu la tudd <laughs> tudd nga tur bi yeete la tudd mais man li ma ci jaaxal mooy li mu lu mu ci bind ñu koy woy ci ci cercle moom da daa gis naa mu bind fenn bi ndeysaan sunu papa ju baax jo yàlla na ko yàlla yërëm euh, Elimane Thiam ma gis ñu bind tant que vivra la jeunesse du Louga ton sera parmi elle. Elimane Thiam Elimane Thiam boo ñu ko doon wax mooy kan. kooku ancien membre cercle la ñun jotuñu ko xam ñun. parce que boobu bi ñuy xale la gaañu Ben, cercle dañu demoon ben voyage di dem euh, di dem euh, Dakar bon c'est une longue histoire ñu def ben, ben accident. Ndeysaan oto bi camion oto bi ñu duggoon daanu seen kaw. Mademba Diop mi ma lay wax nii mi ngi woon mi ngi dégg naa bu la ko Pape Birame dee sa yaram day daw. maanaam boobu moyens yi melul nii ñu accidente oto bi daan yéeg seen kaw ñuy jéem a yëkkati nun leen nun leen nun koy yëkkatee ba pour pour génne leen ci suuf oto bi nee nañ ma ba Mademba Diagne Ibou Diagne xapaa Ibou jaañ moom tam ci Ibou Diagne moom nekkoon na directeur CRES defe naa waaw nekkoon directeur CRES moom tam nekkoon membre cercle la dangay ah. da fàtte parce que day ñëw nii ci nii rek la ñëw ah alors paa Ibou Diagne nee nañ ñoo ngi woon ci suuf oto bi mais loolu lu yéeme la yàlla def Elimane Thiam génn génn ci àddina bon Elimane boobu ku amoon apport la ci cercle parce que cercle man li ma ci fekkee si tuut dama gisoon dañu xarañoon dañu xarañoon ku mel na Pa Adama Ndour par exemple man fekk naa liggéey naa ak moom moom TP la doon liggéey mais paa boobu xarañ gi moom maanaam lu cercle du jouer wala lépp moo koy defar. maanaam euh, instruments yi matériels yi bu dee tame la bu dee. gën la bu dee kuur la. yu ni yu ni yu ni yu ni bàyyee yu ni yooyu yëpp moo moo moo koy defar. loolu daf ñuy may ñu dugg ci cercle. na euh, seen bale yi ni ngeen ko doon defee maanaam damay gis mbay semb nguub noonu boo ma ko doon eh, décortiquer naka naka ngeen waaw lu lu yéeme la lu yéeme la parce que comme li nga wax bare na sax ñu koy seetaan te duñ ko duñ ko comprendre donc parce que man comprendre ma man ñu ñu dëkk CDEPS dan nañ ñëw répétition cercle fekk ñuy répété dañuy gis ñuy enseigné rek mais comprendre ah, loolu boo ñu ko doon décortiquer ñu taaw ex parce que léegi comme ni ngay ni ngay ni ngay waxee léegi xoolal euh, par exemple boo jëlee programme cercle rek bu ñu xëyee suba woy kër yi lu mel na bokk doole ci waar wi nga xam ne dañuy yedd nit ki jot sa réew yomb na téye sa réew mooy li metti maanaam boobu ñoom bi ñuy former cercle nii ay cinquante ans boobu ñoo ngi jëm ji kaas di Sénégal ngi xëccu di jëm vers l'indépendance ñoom ñuy wax nag ni boobu am indépendance yomb na li jafe mooy téye réew mi xam nga loolu ba léegi waaw loolu xam nga actualité <laughs> wax bu sax la ah bon donc mom la ñu commencé am ci ba ci way bi ñu fa def ko ci wayu Covid bi ngemb len la Hein? Ah. Boko boko deug. ko dëgg waaw. manam ñu expliquer ñi nga xam ñoo ñoo ñoo dox suivre. Mhm. cercle dafa génn ben way. ci way ko ci Covid 19. Mhm. donc loolu boo bokk na sax lolou gën naa kiiwal. sunu déplacement. Mhm. lolou moko indi. donc. way woowu cercle woy mu am ndeysaan lool bi ma ko digloo ndax woy wi dafa riime mhm. ndax way bu amee ndeysaan rek dafay neex a mhm. donc man mu jaaxal ma cercle dafa dafa répété way wi wala da koo amoon joué ko voilà cest à li ma la bëgg a posé mooy da ngeen a da ngeen a amoon woy wi denc ko wala nu mu nu mu demee nu nu nu ma daal jaaxal. waaw jërëjëf euh, ma joojo lu lu doy waar la. ndaxte euh, ñun ñi yaroo cercle. dañ fa fekk ñu nu gën a ancien comme man mi nekk président am na ñu ma gën a ancien ñoo ngi ci biir groupe bi ku mel na Fallou Gueye tey ji mooy directeur artistique bi bon yàlla def na bi ñu jógee réunion maak maak Galaay dama représenté ci cercle centre culturel parce que coronavirus bi waaw foofu ma taxaw tuuti Galaay Galaay Ndiaye. du suñu xarit moom nañ koy remercier parce que euh, déplacement bi bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko sabab. mu sonn lol ci cercle man lu ci bari mom la koy laaj ci cercle ñu koy ñaan ar bi yalla nako ci yalla jappalé galay xalé bu nango deg ndigal la parce que ñun fi ñu jaar dafa jafé dé man damay wax ni yaakaar naa man luma am rek ci sama doole def na ko ci jeunesse luka du du du du ma tok fi ma di yombul. lu nekk daj naa ko lu nekk gis naa ko yow am na loo ci xam tuuti. am na tuuti luñ ci xam ci ci ci ci jeunesse Louga moom kenn mënu koo lim. Euh, mais foo boobu aussi dañoo jaaroon topp ci ay mag topp seen gannaaw ñu ni tegtal dañu won yoon. léeg-léeg ma réglé benn problème nit ñi dañuy defe naan da nga am xel wala non non du am xel dafa fekkoon mag ñi yar la déeyoon la ba pare. da ngay loo dencoon sa poche da nga koy génne. mi tànk yooyu yàlla na ko yàlla jàppale. man mooy sama sama loxo daf ma yërëm ma yërëm léegi. laa ko wax de man moom laa ciblé woon pour waxtaan ak. je vraiment wax la lool daf ma yërëm. bëri naa ci dara xam naa ci dara bi ñu jógee centre culturel <laughs> naaju taag daf maa gunge ba fii man tam damay rus léegi xam nga lool xale bu lay def la bon bien que nag. war na ko maa ko yar sama rakk la ñoo bokk dëkk marbat xamante nañu bu baax tout ça donc muy def lu baax ah man tant que nit mi nga ci lu baax la may la may galaay galaay noonu la mel Pape Dia Oraya nii nii nga ma ko waxee noonu la ma ko waxee kon galaay yaa ngi ci yoon boo xamante ne jàppal man moom man moom tàng naa nag ñëpp dañ koy wax tàng naa mais ci dëgg lay tàng rek waaw ñi may yar xam na ñi may àndal sama ay sama ay mag laa àndal man waaw man ñoom baaba ñi ma ñi may àndal sa sa mag baaba may àndal sama mag la sama kilifa la sama kilifa la xam nga ku la doon boot di la yónni di la yóbbu ngay ñibbi seen kër parce que man numbe numbee sama yaay numbe ma taar hmm? alors donc galaay galaay mi ngi ci tànk yooyu yàlla na ko yàlla lafal cat mu bañ a déglu benn influence xool li mu bëgg moom xam na li mu bëgg xam na bëgg incha allah yàlla dana ko defal waaw léegi ci ci lu ñu nekkoon sax parce que. galaay ah, moom daf may <laughs> galaay jaxase na waxtaan bi parce que. ñëpp ko ñëpp ko ah, yéene léegi ñu dugg ci cercle. Mm-hmm. voyage yi nan. lim nga dëkk yi nga xamante ni fa lan dem. cercle ba demee foofu nag compétition yi nan lan nan la fa doxale lu lu doy waar. lu doy waar cercle dem lañu man dugg ànd na ak cercle ñu dem ci benn euh, festival bu nu invité woon. amul compétition festival la rek da ngay ñëw.

dem naa voyage quatre vingt boo xam ni keesu coupe yi ñu woon xajul ci salle bi man maa la ko wax dañ ko mujj wàcc aéroport parce que xajul woon suñu bagage ay kees lañ ko def man maa dajale kees yëpp lu mat ay ay ay vingt kees lépp ay coupe ak ay cercle moo ko jël. yëpp cercle moo parce que trois mois lañ fa def. gan gan gangar gangar nee nañ ko fu nu dëkk bu nu dem yóbbu dëkk bu nu dem yóbbu mais bi ñu ñëwee ba aéroport aéroport ni seen bagage xaju fi. wallaahi azim Italie fa lañ ko mujj a wàcc waaw. dem nañu euh, dëkk boo xam ni bi biñ fay dem dañu accidenté dañoo accidenté dañoo dañoo dañoo dem oto bi dafa ñëw jël sunu ñu dugg ci oto bi di dem euh, di dem ci dëkk boobu c'était en Espagne ñu benn virage ma ma day oto bi def raté virage bi pneu bi toj joojo lu lu doy waar xam nga accident nga yore ay doomu jàmbur boobu Pape Birahim mi ngi ci Pape Pape Pape Demba Dieye mi ngi ci Pape Ndiouga Samb bu bu Sàkkal mi ngi ci. Pape Demba Dieye Ndiaye. Demba Dieye El Hadj Demba Dieye Ndiaye. Baye ñoo ngi ci oto bi. ak sànq gën a gën ak seeni doom xam nga loolu dafa dafa dafa metti mais accident bu bu bu ma ma gën a jaaxal nag man ci cercle ba léegi daf ma yéem mais joojo ñu ñu g ñu ñu ñu yóbbu na hôpital hôpital la ñu fanaan ñu def ay soins hmm? bi nu bi nu xëyee suba pas Ma Mass Dakar mais dafa jël avion fekk nous. il faut ñu jouer ak ay col man ko ngay gis ni, dañ taf ben bi batterie bi yi dafa mais dañuy jouer spectacle bu public bi di yooyu c'est des c'est des souvenirs yoo xam ne du ma ko fàtte. kon daal mën nañoo wax ne cercle maanaam au niveau mondial dem na fa ba jël fa coupe yi. yëpp mais ku dem ku dem euh, festival des cinq continents dem fa delluwaat delluwaat ñu sélectionné waat meilleur troupe yi nekk ci ca ca continent yëpp dajale leen nga jëlaat coupe bi loolu kaw coupe du monde nga gañe loolu nit ñi dañ koo xamul rek. coupe du monde kon cercle coupe du monde la jël. waaw nit ñi xam nañu dañuy wax leen diwa tax ñu xam Sénégal bëgg may tudd tur di tooñ. wala eh, lii walla lii non cercle moo tax ñu xam Sénégal. dëgg la ñun fu ñu mas a dem. fu ñu mas a dem drapeau te loolu maa dem ba jóg daf ci tëjunu fu ñu mas a dem drapeau Sénégal la ñuy yore. waaw bu nu yoree tableau cerclage dañuy yëkkati drapeau Sénégal donc honneur Sénégal la ñu doon wut mais dama lay wax fu ñu mas a jaar bu dee carnaval bu dee spectacle. fu ñu jaar ba suuf dëkk ba yëpp ñun la ñu topp bàyyi ñett ñi ci dendoo seetaan. dëgg la ndeysaan loolu dégg nañ ko ci histoire yi kon euh, mën noo wax ni jël nañ tuuti wax nan tuuti ci cercle bu njëkk léegi nag ñu ñëw nag ci cercle bi léegi nag cercle bi léegi nu ngeen di doxale ndax euh, euh, xale yi ñu ci bari voyage nan à travers cercle de la jeunesse bu waxee xale yi mooy sunu mag yeeg sunu nijaay ñu ci bari voyage nan léegi présentement naka la cercle doxal waaw jooju lu lu doy waar a ngoog lu doy waar mooy 90 euh, 1990 bi ñu jógee tournée Italie Espagne euh, Suisse bi ñu ñibbisee bi ñu ñibbisi presque euh, def naa plus de trente trente artistes toog nañu foofu. ñoo xam ne dañoo demoon pour jouer ji toog fa ñibbisi wun wunu te boobu du du du du ay artistes kii maanaam.

bobu ñom Papa ndjay bay magad maram Sey. ñu tudd man maa nga faté groupe Mademba. Daaray Mademba CRS la doon rek. ma ngoog ñu formé demba Mademba. ma demba itam nek ay xalé yu yu yu yaru yu dégg ndigal. mais yu bëggon ar ku mel de Papa ndjay wala ay mam Cheikh nya hein ah, ay pap Fall. presque groupe gogou bi ñu ñëwé bon avant ñu ñëw sax Mademba parce que Mademba la ñu tuddee won troupe Pape Xaar sama papa moo. proposé daanaka maa Demba du du du vieux di euh, Demba Dieye Ndiaye man maa Demba la. maa Demba Diop la maa Demba Diop la maa ngi koy a xam tey. waaw ko tuddee parce que am na tur bu nu jëkkoon jël après Badara Ndiaye. ñuy def benn réunion fii ak sama papa ñuy waxtaan mu wax sama papa projet bi. sama papa ne ko da ngeen koy tuddee wax wax mu wax mu wax mu mu mu mu ne ko kon da ngeen koy tuddee Daara Mademba Diop moom Mademba Diop lañ ko tuddee. ma dem ba Diop bëgg bëgg daare dem ni mu bëggee Cercle ndeysaan xale yi nek ay xale yu déterminé wu balaa boobu ñoom ñu ci bare ku mel la Papa ñay fekkoon nako muy évoluer ci cercle mais ñu ci bare après ñu intégrer leen ci ci cercle de la de la de la jeunesse xale yoy bi ñu ñëwee mu mel la vide masul am. bobu ban année la 1990. 90 bi ñu ñibbisee. bon ñu ñu dox ci lu bare dox ci ak xale yi ba troupe bi performant xale yooyu aussi tukkiwaat <laughs> toogaat parce que itam nag ay léewoon dañuy wax maa dem rek mais bañul woon loolu moom moom li mu doon créé parce que maa dem ba def naa nee na ma def na def na presque dix ans nekk conseil municipal xam na xam na li xew ci dëkk bi xam na lu dëkk bi mën xam na coono yi fi nekk artistes yi itam ay famille ñun famille la ñu woon ku ci nekk xamoon nga li nga mën ak ak li li nga attan te jam lu nga neexul boobu itam boobu ñoo ngi jógee ci sécheresse bi dëkk bi nag. bu ma déggee li ngeen wax nga wax mooy cercle en dehors de troupe bi spectacle jeu bi amoon na benn aide bu nekkoon aide sociale bu newoon ci gannaaw maanaam dañuy fexee ku nekk ci de famille ñu fexe ba nga voyage yi dimbali sa famille. loolu am na lu ko jiitu sax. cercle daf naa liggéeyante poste travail liggéey.

doomu doomu doomu doomu doo doo seen doomu doomu doomu paa yi nga xam ne ci cercle lañu bokkoon te mënuñoo voyager bëgguñoo voyager am ñu fexe seen doom dem parce que àddina aussi. looy nekk rek da ngay xool def ci loo xam ne yàqul aayul mais lu baax lay def nga def ko. waaw te loolu amoon na ci da ci amoon suuxa. Hmm. amoon suuxa waaw donc bare na. mën barana barana na les may wu mais du luñuy limni mais barana barana cercle je bi rek mu def ko mom def nako ñeneen def sax ak def donc bobu sax e, esprit bu rafet la parce que ça a servi tout Louga wa parce que man gis na ño xamni tay ño nga yore seen kër tabax seen kër yu rafet yore seen yu di dem di ñew lolu sagu Louga kon les dañuy ni ñooñu nga xam ne ci cercle lan jaar wala seen wayjur nekkoon fa tey ñu man seen bopp ndax ñooñu tey ñu ngi bàyyi xel cercle wala ñu ngi ñu ngi ñu ngi fàttaliku wala ñu ngi jéem a euh, fexe suuxat cercle ndax jàpp naa ne ñi nga ko waxee ni nga ko xamee nii man noonu laa ko xamee tey bu ma doon lim ñi jaar cercle wala ñi seen wayjur jaar cercle tey ñu mën seen bopp ma gis ñuy jëf yeneen teraanga feneen mm. xawma ma ba xam ñu ngi koy def cercle wala dama doon laaj est-ce que jotul fi tolni cercle créé ben ben ben cadre bo xamanteni bi mhm. les anciens de cercle lay tudd xaw ma nu mu mën a xam nga euh, jojo pour dire vrai cercle cercle rek lay tudd cercle de la jeunesse. cercle de la jeunesse lay tudd. man de bëgguma ci sama sama sama sama xulo ak ñu bare bëgguma ci yok virgule bëgguma ci dind virgule. waaw danañu dellu danañu dellu si ci woy bi parce que dañ ko sote sànq coronavirus bi ah danañu dellu ah mooy objectif bi ah euh, cercle cercle lay tudd léegi nii nii nii nii nii macha allah Galaay Galaay Ndiaye créé na benn benn groupe créé na benn groupe boo xam ni yàlla dimbali na ko ci mu dugal ci ancien artistes yi bu dee bu dee bu dee bu dee bu doon bu doon téeméer am na quatre-vingt pour cent ci artu cercle yu ci dugg. loolu laa doon wax ñoo ngi ci dugg. ñoo ngi ciy waxtaan bu sama téléphone ne ko ma la wanee toujours sama suñu téléphone day fees. donc euh, ah, yàlla mooy waaw ñu ci bari. képp ku mas a jaar cercle rek ñu ci bari fexe ngeen ban bu ngeen ba tënk leen ci benn groupe. groupe fii mu nekk nii. ci weer wi passé la la am mi ngi bugg am deux mois. Hmm. mais group bi dafa permettre ñoo ngi retrouvante di waxtaan. Hmm. di di di diisoo. ba di ci génnee ay xalaatu defar di ci def ay xalaatu defar bon donc man damay wax rek euh, mën na mën na yéex yéex na mais mën na baax mën na baax ñun nag euh, fii comme li nga waxee loolu ak départ tur bi tur cercle euh, artistes yeeg yëpp ñun dañoo toog fi ñu fi ñu nekkoon maanaam ñun duñu seetaan cercle yàqu duñu seetaan cercle yàqu il est vrai que man tukki naa fait cinq ans bi ma aussi la première chose bi ma c'était xool ci cercle lu le nekk lu cercle depuis lors man ba ma ñëwee ba léegi bokk Man ngi ci ànd Galaay Mor Fall Fallou ah, ak xale artistes yi nekk parce que cercle dafa bëri artiste. artistes heure bon mu bu ñu commencé fii bu ñuy wax spectacle non non non est-ce que dana est-ce que non man nak, damaa gëm loo xam ne man sama ay kilifa ñoo ma man lu ma ñeme rek dama koy dama koy dama koy je vais je vais droit damay dem te itam yàlla mi ngi nu ci dimbali cercle mi ngi dund ba léegi ngi cercle mi ngi dund ba léegi alhamdulilah cercle mi ngi dund ba léegi way bii nag maanaam hmm. ñoo dugg ci way bi cercle mi ngi dugg ba léegi dund ba léegi alhamdulilah objectif bi moo doon dikk ci cercle bu njëkk lan ma lan la cercle formé woo fan la cercle toll ak cercle bu léegi loolu nga ko cee brosser rek mais yittey waxtaan wi ak yéene ji yëpp moo doon way wii nga xam ni cercle da koo créé def ci clip génne ko pour sensibiliser pour yeete ci ci Covid 19 bi way wi naka la demee. jërëjëf moo la yaa ma jëlee foofu rek fi ma jëlee maanaam cercle boobu ñuy wax ni kiiwul mi ngi dund bële parce que foofu ca foofu ca cercle boobu la ñu jëlee ca livre yeete boobu maa dem bind ci way bu ñuy wax ngemb leen mu gañee ay trophée yu bare fu ko mas a woyee am naa sama benn grand morfal du mi du miis woy bi mukk waaw bis heure boo ko woyee moom moom day day daanu donc euh, way boobu dem Mademba Diop daf ko bind yàgg na mi ngi ci programme cercle bi mais li ma la wax ni la programme cercle loo bugg a régler ci ci ci ci situation loo bëgg a régler soo jëlee da nga koy adapté mooy li ma la wax sànq ñu jël ci li fi woon feddali ko jëlaat ci li fi tey ñu boole ko mu jur si ëllëgee si biir yu gën si biir yu gën a neex ñu bokk ko donc woy bi woy bu dem ba jóob bind la mu nekk way way bu way way bu neex waaw mais dafa bare li muy yeete parce que tuuti parole lañ ci la ci fàllu changé parce que eh, je remercie maa ngi maa ngi félicité en passant Fallou Fallou Gueye nga xam ni moom mooy directeur artistique bi bi affaire bi amee bi ñu jógee réunion dañu wax ku nekk day présenté bon am na ñu xalaat bare woon na ay xalaat yu ñu génn mais après moom mu bind way bi proposé ko ñun ñëpp ñu dindi suñuy c'est une proposition jël proposition parce que man li ma ci gisoon mooy il faut que le cercle soit présent mais je sais que ni moom Fallou il est capable de tout faire waaw ah, dama ko sonal nag dama ko sonal lool maa ngi koy nuyu di ko <laughs> di ko ziare dama ko sonal lool alors sama mais sama mag la sama xarit la ah. donc euh, ñu mu jël ci euh, ci répertoire u cercle am lu mu ci changé mu adapté ko ci woy bi parce que kooku Fallou Fallou Fallou grenier la fàll sàq la ci lu seq yàlla na ko yàlla ko yàlla fal cat sunu sàq la sunu sunu dafa bokk ci ñi teelu a dugg cercle ci waaw moom dama koy wax léeg ci màggu cercle yi nga bokk waaw alors donc fàllu jël ci ci loolu ñëw présent ñëw présenté ko en commission ñu waxtaan ci xëy na ñu yokk ji tuuti tuuti mais lépp daf ko gàddu ba woy desee sax ba dara desul woy dafa gàddu woy bi ni moo koy woy donc mu neex lool ci ñun mais donc ñu jël wax wax yi boo dégloo woy bi benn par benn dafa correspond dafa mel na coronavirus moo tax ñu woy ko te itam coronavirus nag dafa jar ñu woy ko woy wu rëy parce que moom dafa rëy ay mbir ma jooju dëkk bi jaaxle nañu réew mi jaaxle nañu te bëgg nañu sensibiliser Louga sensibiliser Louga man j'ai insisté ci commission bi ma ne fàllu man dama bëgg woy bi mu nekk woyu Louga ma joojo comme li ma wax Achille ñaar yéen ñaar ñëpp ku ci nekk daf may neex bu may waxal ak yéen parce que sur le champ rek damay wax ni ma woy bi dafa daw sama yaram ça veut dire woy bi woyu Louga la da koy yëg boo ko yëgee nag da nga ko déglu man loolu laa ci wut loolu laa ci wut loolu laa ci sama observation loolu na nekk woy boo xam ni Lougaatois bi bu ko déggee dana ko mais Sénégalais bi aussi su ko déggee dana ni ñii lu ñuy wax waaw te woy bi ku ko dégg xam ni woy bu bu bu complet la woy bu bu jàngale la woy bu yeete la waaw te lépp luñ ci war a wax rek surtout les mesures barrières j'en profite pour pour pour yeete yi ñuy raxas loxo yi bon euh, takk masque yi ñuy sant yooyu yëpp man damay wax nit ku nekk da nga jàpp ni yow sa bopp tax ñu la koy wax. waaw parce que li ñuy wax maladie day wàlle mais yow wàlle kenn xamul bi gën a garaaw mooy mooy mooy cas yi ñuy wax cas communautaire yi nga xam ni yow ñun wóoruñu sax ñun ñuy toog fii ndax am nañ ko wala amuñu ko waaw nit ki da ko yore ñëw paas la ko continuer di ko paase et puis musiba la man nag may wax ni la xew Europe la xew Chine la xew Amérique xajul ci suñ dëkk bii ma xajul suñu dëkk bi man tey bi ma mujjee liir defe naa Espagne mi ngi ci trente et un mille morts France vingt six eh, vingt sept morts ah Amérique kenn waxutul ah Chine la mu fa def ñëpp mi ngi koy teg teg seen bët waaw loolu duñ ko gis ñun ñu nu koy won toujours toujours mais nañu nañu gëm yàlla ku gëm yàlla nag mooy gëm doomu aadama da ngay gëm ni doomu aadama yi yàlla docteur yàllaa ko jox xel keneen yàllaa ko jox xel ku nekk sa wàll sa warugar nga def ko ñu toog ci biir kër yi moytu moytu te yàlla ndax yàlla aar nu ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi Cheikh Jacques sonal nan la koor gi ku xam ne mag mu woor ba heure bi nga ñëw di ko waxloo waaye dafa fekk mu nekk lu nekk ci xolom moom xam naa ko tay ji <laughs> bu mako yewon yeewoon quatre heures du matin ci cercle da ci wax kon moom Louga da ko ameel njukkal ñun jeune yi ñu ci bari dañi jang ci mom dañi dañi dañi jël experience ci mom tay ni mu mel ci cercle bo demee ci diiné ji non la ci mel tay ay serignam gëreem nañ ko seexal ko kilifa gu mag la comme mom exemple la ñun sun référence la tay dañu mënu won bañu ñëw rek laal ci cercle mu nek yoon bo xamne dañ ko ubil média yi yépp képp ku man na nga da nga jéem a documenté wu ci cercle de la jeunesse ndax mooy xoolu Louga ndax Louga seen identité cercle da cee bokk ñun ñi nga xamante ne bi xam nañ loolu nekk ay ndaw ñu jéem ci bu ndaw am na ñu ñu ëpp expérience ëpp ñu audience suñ ko gisee dina ñëw jéem a documenté wu ci cercle médiatiser ko mu dem bu ko defee li ñu bëgg ci cercle dem kon ñu lay gërëm di la sant di la bàyyi rek nga tàggoo sa kàddu gu mujj. waaw maa ngi nuyu waa Louga yëpp. mais bala maa juum.

sortir un bon produit pour Louga di la gërëm aussi nag waaw cercle way rek la génn wala am na wala wala parce que bi ñu demee fële aussi. limité affaire ku nekk na am lu préparé bi ñu ni ñee dañoo préparé dafa am ñeneen ñu préparé ay sketch bëgguñu def mu jaxasoo ñu changé ñu changé loolu def def ñun kër parce que on savait aussi que xamoon nañ la ñuy def nag xamoon nañu def bu baax parce que loolu la ñu def lu baax xanaa ma jojo ma ma gërëm nga nuyul ma sama kilifa baaba ma gërëm bu baax di gërëm euh, Ablaye loo ak Mbodj di leen ñaanal seen télé bi yàlla na ci yàlla def euh, mu kawe ca kaw a kaw ma lay ma lay encouragé ma lay encouragé parce que euh, lii dafa jafe maanaam ku mel na yow yaa ngi ci waaye ku mel na man maa ngi maa ngi xool toujours di bañ fu nu sikke sama rakk waaw ma wax la ko bokk <laughs> waaw donc yàlla na la ci yàlla defal ay ndam yàlla jàppale la ci barke Seydina Mohamed may nuyu waa cercle yëpp yëpp di nuyu aussi sunuy famille di nuyu suma waa kër sama yaay sama ay soxna di nuyu njaboot gi yëpp mais di wax ni bu ma bul jàpp yow da nga may déranger heure boo ma soxlaa xam nga li ñu bokk xam nga la ñu bokk. jërëjëf Cheikh jërëjëf Cheikh Zak kontaan naa trop kon ñu tàgg leen fii ba beneen yoon rek di wax ne rek seen yitte mooy sunu soxla asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.